waaleykum salaam. foofu du Télé Sénégal. waaw yaa ngi biir Télé Sénégal. waaw maa ngi lay nuyu nuyu sa technicien bi. ñoo ngi lay fay bu baax a baax a baax. waaw di leen ñaanal jàmm rek di ñaan réew yàlla mi yore jàmm te dara la ko déwoon soxna si yàlla dara ñu jàmm yàlla tasaara jàmm ci Sénégal. amiin ñu bokk. waaw ci di leen gërëm nag. te mm-hmm. yéen journaliste yi suñu waxee suñu aqlaay taala li ngeen def nii amu fi woon. 80 84 85 amul woon. d'accord waaw ah, direct yi ngeen ñu may yi may ñaan nit ñi dañuy tegginal carte yi. Mhm. soxna si kilifa yàlla moo koy def nit. Mhm. Ousmane Sonko mii ki ñaaj sans borom ba li ko indi ba mu nekk premier ministre. tubaab bi dañuy wax ne il faut goûter le mal avant d'apprécier le bien. Mhm. Ousmane Sonko li mu daj ci coono mburu sax daju ko ci coono parce que mburu da nga koy lakk bu ñoree nga génn ko. dëgg la ay ku mu féex ñu sant Fall ak Diagne yëpp daw dem jëndi ko hmm. mais Ousmane Sonko hmm. n'oubliez li mu daj nii romb na mburu ju dem na ba nekk comment wax ju bon ju wax nañ ko soogu nañ ko wax ko lu ne mais en sabre ma en sabre yi maa ngi gërëm ay waajuram nag ci éducation bi ñu ko yar discipline ak muñ bi mën a muñ hmm. ba yàlla dogal gis na li mu mel giriñ gi naaj la borom di wax jàmm giriñ gi naaj borom a wax jàmm Ousmane Sonko dara la leen deful presse bi ñu ngi may dégg. d'accord ñii nii yëpp si nguuru Macky Sall gi lañ la leen dale. Hmm. ñoom ñoo wax ne parce que TNT bi benn baas jaañ male moo ko moo ko moo ko féet. Hmm. TNT bi dafa am ñuy woote te xamuñ lan moo taw ci TNT problème mu TNT lañ am ak patron yi parce que ñoom dañ doon fay foofu un million par weer douze mois yi nekk euh, fukki million ak ñaar. waaw soxna si Ousmane ko moom lan la ci dañ ne rek moom moo war a tax par force ne na ko fa fay suñu millions yi wala ñu attaqué ko et puis nee na dañuy wax ak kenn ku dul président te am na ministre tutelle ministre bi yore l'information mu ngi fi pourquoi dañ jaar la voie élargie mhm. ah yow est-ce que yow tey jii boo boo soxla woon si internet bi damay wax sa directeur bi ne ko ne indi caméra bi ñuy filmé est-ce que directeur bi dee indi day indi caméra bi ñëw demee filmé est ce que dama boole ko journaliste. Mhm. non xam nga nit ñi man dafa mel ne ñàkk a jàng moo tax yéen ñi seen doom yi ñu baree bari jànguñu xamuñu mooy la voie légale loo gis dafa am yoon conférence de presse dañoo toog fan ubbi seen presse indi seen xaalis ñoom dañ doon commerce. d'accord bu dee bugaan day commerce. am nay appartement am nay bâtiment ma nga cere day commerce moom moo taxaw fii wax ne lii. mille milliards quatre cent quatre vingt sept milliards déclaré naa ko solo ci impôt et domaine junni milliards benn milliard bu muy junni mhm. quatre vingt sept milliards ci alalam mais loolu mu toog ñu ne dama leen fayee impôt mu ne mu ne moom du ko mënu ko fay ba ñu nga ñeen nangu immeuble ba loolu yow si loolu est-ce que Ousmane Sonko moo ko def immeuble immeuble bu gaan doo ñu nangu ne di ko wanteer ay huit cent milliards millions ak lu toog loolu est que xaw ma kii du président Diomaye si moo joxe digal. mbirum immobilière la. ah. ma ni saisie immobilière la moo tax. waaw waaw yow yow yow xam nga li nga xam ne ci àll bi. bu la loolu loolu sama loolu gouvernement gouvernement Ousmane Sonko bi la. bu naan problème bi am ko am ko kenn Macky Sall la ko war a amal Macky Sall la gouvernement bi ñëw. moom war na ñëw bokk ci coalition bi ñëw ñëw ñëw bokk ci l bi ñëw su ko toog fële ne day xaar dégg Sénégalais yi sol Macky Sall euh, premier tour lañu sol président Diomaye premier tour hmm. léegi mu taxaw mu rek gerte na damay nekk ci opposition loolu ngeen doxuloo baax na président Macky Sall def mu mu song dama song Macky Sall Macky Sall moo leen waxoon ne leen day baal fiscal may mën a ndur fay nee na Macky Sall daf naa na ko yow eh, lii dëpp lekk bi ne ndaxu xool xool bu baax léegi naa yow fay koo imp mu xool ku mu ne noonu lii Macky Sall waxoon na baara wuñ ko ñu ne ko non baara wuñ ko Macky da koy wax nii rek mais officiel yi ko d'accord ba Macky Sall li ma def nii mhm. keroog bi ñu am na Ablaye Wade mayee xalifa général Baye Fall Macky Sall moo ko nangu dafa woon oto yi mayoon délégué de quartier yi Abdoulaye Wade ma ak chef de village oto sarkat yëpp mayoon chef de village parce que dafa woon yëpp nangu démb gis naa benn communiqué waaw ñu ne mboolem gouvernement bi Macky Sall li mu maye woon récupéré woon na ci quatre vingt dix neuf pour cent ay voiture quatre vingt dix pour cent la wax ci ay voiture yoo xam ne Macky Sall moo ko joxoon daaye bii ci dunguru gis naa communiqué bi su dee peut-être danaa la ko yónnee da nga gis ko d'accord yéen journaliste tam ñu ngi ñaan ngeen gën a yokk investigation parce que yooyu yëpp am na te gisuma benn ci commentaire quatre-vingt-dix pour cent ay oto yoo xam ne Macky Sall boo ko may woon bi muy def sarax bay ñu teg di leen toog bëgg leen ko baaxee man ñu leen jot leneen laay wax moo des leneen li mu wax ñi nga xam ne kay ñu vote ñu di leen tax ay médailles yi or nga demir ñoom ñu naan euh, commandant bi dañ ko pale dañ ko ba pare ma nga foon boo leen ñaan ko mayoon médaille dañ ko nangu parce que Macky Sall décoré yi day liggéey kat ay yaafus kat la doon décoré médailles yooyu yëpp nañ ko nangu jox ko ñun tey ñi nga xam ne dañoo demoon door am am handicap la ñu jox leen boo pare jël xaalis baax bi leen fay parce que ñoom dañoo liggéey seen réew ñoo wër di kat ay nit kat fara xolee tam teg ndax ko gën a baraxal baraxal nit ñi di bëgg a dee quatre-vingt-dix personnes dee fii ñu taxaw fii di ubbi seen rajo yi seen télé di tëgg ayaatul nag ak suma naree dee sew dee lépp xaalis réew mi lañ def ba pare ba ba jël seen presse boobu nag tuur ko ci gouvernement bi di leen boole journaliste yi ak président Diomaye tey ñoom dañ jubal dara lii dañ leen sonn ñu ay cinquante millions par weer ak ñu cent millions am na ñoo xam ne sax li ñu nekk ëpp na juróomi milliards ci biir Macky Sall fan lañ ko def parce que ñoom Macky Sall ana Macky Sall nekk dëgg mais neen rebi na ma tëj nañ ko ca kaw ci yow ba dañ koo coupé ca la ko allo ah? waaw waaw. waaw ma ni ana naka nga gisee xibaar bi nga xam ne wàcc na démb mu ñeel li nga xam ne coowal suuf bu ñu dégg ki nga xam ne moo di yaay euh, si Mariam Faye Sall ak ki nga xam ne nii moo di euh, frère di. Adama ah, Faye ah waaw yow xam yow maa ngi lay gërëm soxna si vraiment naa mm-hmm. si yow da ma am na ko fi nekk fi néew sama maraîchage daal tegal naa la ko foofu. <laughs> la la première dame. waaw ñu dem ba yaay ñu ko wax ci affaire suuf parce que madame Ghazal ñu ngi jumaa paregul ndax moom moo yore service de Sénégal. Mhm. combien de milliards la jëlee ay personnes sans les services de palais ñu yore service de Sénégal ba ci jamono yi ñu dégg ñu Waly Garam service de Sénégal lañ nekk. état bi nga déglu rajo yi ubbi nii yëpp ñu di leen jëlee xel keneen di leen jaayee di leen ko may ñun gis nañ ko man nee naa état xam na ko man de naa ne sunu émission bi xam nga effectivement ay auto service la Sénégal lañ bind seen oto yi ñu di ko dawal di saaga Ousmane Sonko lu ñu wax ñu ngi seen waaraat yooyu ñu ngeen may ci def numéro yi ñi ngay xam ne ba biir réew mi tax bu def daa réew mi ñu ngi yor ay mairie bi dinaa yor ay nit di sàcc ah xëy na yàlla jox kon tey doo doon leen jël na tuxu bu fekkee ne Ousmane Sonko ay maire bi la dé ak wëllu la billahi doo doon leen jël seen bagage d'accord mais teew muy dox. ñoom ñoom bu moo taxaw ñu cent sept ndax lay jël bopp. soxna ci réew mi lan wax Adama Faye Adama sax bu faa nekk la ko di di jéem ndax loolu la ko wax Macky Sall na ko bàyyi fay bu ne def Adama Faye am ko fi. d'accord am ko baram koy jàllale. yaay yaay lan lay wuti ci maire yi dañ ko tudd ñu njaayam ko. ak yooyu bi nu mu màgg nii. Mm-hmm. ak milliards yi màgg sax ah, eh, soxnaam si doomam ci yor madame Ba Sall milliards yi ñu doon ban njëriñ la ba ñu ba ñu dumal yaa ci loolu fenn si. d'accord fan ngay daal di xabaar bala may dem léegi ensemble national dañ faa woote woon tey suba. Mm-hmm. parce que man ci information laa yëngu ensemble national dañ faa woote woon tey suba. pour ne la loi bi génne premier ministre bi ensemble. ba Ousmane Sonko ne fépp delloo waat leen waaw du ma ko ñëw lu ma ama delloo waat nañ d'accord ñuy déglu sa télé bi nii ba ci internet bi loi bi génnoon premier ministre ensemble national wetawaat nañ loi ba ensemble national ba dégg dugalaat nañ président assemblée nationale bi di wax di wax ne ñoo ne ñoo ñoo ñii ñoo ci seen liggéey la woon maanaam loi bi nawet ñu génne ko mais léegi loi bi nawet na leen ci dugal ko looloo tax ne nee nañu Ousmane Sonko a raison waaw Ousmane Sonko arrêté yooyu noo ko ciy fekke tubaab. Hmm. nan la koy fekke. Ousmane Sonko moo am. wax nañ ko léegi nii si internet bi ma doon jëriñ en direct laa euh, moo ko doon ah? dafa yàq réew mi mu dem gis nga ñii ñuy dugg léegi di saaga Ousmane Sonko ak di saaga ñu ñu woote man du ma xam man du ma xam xam ne loolu Rasul laay waxoon nee na àddama rajo sax sax bi li yàlla dimbali ñu gis ñu laaj ci tànku bi ñuy dimbali tey bi ñuy dimbali ëllëg mooy dëgg bu ñu fekk danañ ko wax. kon ñoom ñoo di saaga ni billahi barke Cheikh Ahmadou Bamba billahi wallahi taala bu mhm. ñu jàkkaarloo mu xool léegi wala mu envoyé ko sama photo bu dee dëgg na woote ko ci Sénégal waaw mais bu la neex li la neex waxaa rek mais un jour fekk laa doo boo ko waxee nit day wax am na lu nekk ci kanam mais bi ñu lii nii Ousmane Sonko nii bu ma naqari bàyyi boo nga jël say bagage yàlla ko fi indi moo ko tegoon ni boole ko ay fuy di ko agressé di ko dóor dóor ko devant tous les presse internationale mais yàlla mi indi nit moo ko indi def ko président par force mu joxoon nit ñu def ko président par force dafa joxoon dommage ñu xool ko premier ñu xool ko premier prix te fii mu toll nii bu ko joxoon naa dem tamit dañ koy falaat suñu léegi day jël président président du du monde entier waaw waaw africain yëpp mooy seen président bu ñu doon jëlaat nii le président Sénégal président africain yi la. parce que bu ñu demee CEDEAO. Mhm. dégg nga ne waxtaan dafa nekk léegi moom la ñuy euh, jox commission bi dafa yaa ko jox waxoon naa ñu jàmm dafa yaa ngi doon yëpp dañ naan ko démocratiquement kenn ku ne taawul ni ñu réew mi jox la ko mais sax la war neexut. neex na est-ce que yow yaa ngi koy dégg. am na solo. ah loolu kay tubaarkalla tubaarkalla. jërëjëf jërëjëf Dakar euh, maa ngi leen di gërëm baax a baax jërëjëf